foofu lañ ko defalil parce que lii tamit lu ama am solo la parce que moom dëkkul fii mu nga dëkk ba jàmm gën wala lamsaar waaye xëy na ni mu fiy xëy di fi gontu wala taxawaay bu mu fi am bu rafet moo tax waa Seras gépp àndandoo defar mbedd bii ba mu rafet def miir bi nii delloo ko ci njukkal te loolu defe naa ne itam am na solo trop mbër tamit la mu nga xam ne moom moomu yaakaar naa ne wàllum liggéey bokk na ci lu muy def kon moom day bëree mais day liggéey loolu mooy li am moo tax nag ma ñëw fekk ko moo gaay gaay a ngi nii toog di naan ah comme ni ko gars yi waxee waa Seras muy nuyu gars yi Seras nag bu ñu waxee xam nga am na mbër mi ñuy wax bàcc Seras moom bokk na ci mbër yi yëkkati tur turu Seras loolu tamit dafa jar di fàttaliku parce que moom turu macha allah daal maa ngi lay bëgg góor yàlla. waaw kilifa gi ñu ngi lay sant. tur bi Laye Ngom. waaw Laye Ngom war ngaa bëgg ceeb de Ngom. non man bëgguma ceeb de yow sant bi yow <laughs> man bëgguma ceeb de. Ngom daal nijaay la. Ah, man daal Ngom laa sant quoi. mais defe naa ne yaa ngi fii. Euh, kii di taqe di seen rak nekk fi di fi liggéey nekk mbër di nekk ci lam ji di wane boppam macha allah buñ demee ba lu mel nii am ñu defar fii ba mu rafet def fi li nga xam ne moom mooy nataalam tudde ko fii loolu yéen ñi fi nekk moom di liggéey ak moom lu ngeen ñu mën a wax ci loolu waaw sëñ bi ñu ngi sant yàlla julli si yonente bi sant suñu ñaani waajur di wax lii lépp mbégte la ko quoi ndax taqe moom moo méritoo lii da papam daa ñëw si marché bi yar nañu nekk ay booy ba nekk mag mbër mu nekk jaar na fi mais bu mel nii kenn mësu ko fi am yaroog ak teginam moo waral lii quoi jël boppam nag tuddee nu ko tuddee ko suma rakk muy taxee waaw kooku koo xam ne daf nay jaloor boo xam ne si mën na nekk làmb waaw champion la woon mais dajul dugg si làmb ji waaw bëri na si ay mbapat lu ne def na ko ndaanaan la bu demee ba jël boppam nag tuddee ko taxee ñu ñii nii ay grand frère am ay nijaayam ay ñëpp toog dina am amoon lu jàppale ko rek waaw jàppale ko te ñun li bëgg daal ngeen jàpp si yéen te xam ni taxee mi ngi si yoon waaw mi ngi si macha allah am na solo defe naa ne foo nekk na nekkin war rafet kilifa gi. waaw siyaar na leen wér waaw li mu ci dolli mooy kii moom waaw gannaaw bu mu sant yàlla julli ci yonent bi kii moom lu ñuy def mooy ñaanal ko parce que gis nit tuddee ko sa tur dafa neex bàyyi ñëpp xool suñu rakk muy taxe ñu koy wax Moussa li indi taxe bi mooy dafa ay mën a bëree ba ci football bi léegi nag moom li nga xamante ne amu ko ci tur bi ci football bi ak bëre bi ñun ñëpp nga xam ne ñun ñooy amagu taxe ñu mobiliser wu topp ci ganaaw tax mi tey pour moom mu am loolu ci moom ñu koy ñaanal nag waaw jërëjëf. maa ngi lay ziar papa. ziar nañ la ziar nañ fii tey fii ñu ko tudde tey lii miir bi ñu defaree ba mu rafet maanaam defar fi mu rafet delloo ko njukkal ki nga xam mooy tax. waaw taxe bu ñu ko delloo njukkal suñu bopp lañ delloo njukkal suñu baay lañ delloo njukkal parce que papa monument la ci daral gi. kone gone gu fi sa bët xonk fompal na la ko kon moom bu bëtam xonkee ñun ñoo koy fomp du baayam parce que dégg njëkkal i dañ koy delloo baayam rek yal na yàlla dëgëral taxawaay papaam guddal fanam ba moom li mu mébét pour defal ko baayam baayam fekke lépp gone gu am yar la gone gu am cër la dañ koy ñaanal rek fi mu teg tànkam ren bu déwénee yàlla na am beneen palier bu mu tegaat tànkam gone gu baax la ki mu tuddee tur bi nag ñoo bokk ndey ñoo bokk baay rakk la boo xamante ni du ma nëbbatu pour wax ko rakk bu rakk bu ma teral la olof dafa ne sa baay bu doo bu deewee nga naan sama baay bu doon dund ma defal ko teraanga defaloo ko sa taawu baay waxoo dëgg teraanga boo yaakaar moom mu koy defal moom it dama koy ñaan yàlla yàlla dëgëral ko guddal fanam damay wàcc kër ga ñëw fekk saaku ceeb sax aalu ku fi dugal lii ñu ne ma taqee ma ma lemaat sama geen toog ci kon dama koy ñaan yàlla mu dëgër rek bo nit boo amee ñaan waajur loo ragal da ngaa ñàkk jom te am na ñaanu waajur kon boo ragalee da ngaa ñàkk jom yàlla na yàlla dëgëral ngay am ay combat di daan ñu koy bëggee fii lépp fii lañ koy bëggee bu ànd ak dogal yàlla waaw waaw yàlla na yàlla dëgëral guddal sa fan rafet na daal waaw. léegi balaa ma balaa may dem ci taxe kii moom defe naa xame naa ko jàmm gën. baaw ñu ngi lay siyaar la jox sa wàcc waaye ci loo ne yow tur bi nan laa Assane waaw yow mii itam defe naa ne fu ñu gis taq gis la fa de. non parce que tey maa nuyu ñëpp di siyaar parce que ñun tey amuñ lu ñuy wax parce suñuy kilifa ñoo toog mais tey képp ku ko seetaan dina xam ne ànd naag ay nitu démbam parce que tey ñun ñi ñuy àndal suñuy papa lañ ci làmb ñun moom leen rek lañ koy wax mooy ci li mu nekk ndaw ci gën a nekk parce que nit yi kenn moomu leen lii mu am nag sas la bii nelaw sax xelam daa war a dem ci entraînement mu joobe ji parce nga juddoo fenn ñu koy defal gënoo leen papa gënoo leen yaay ñu defal la loo xam ne yow tey musu nit musu ko am ñu defal la ko pour man loolu sas la billaay nit ku ne jaar na fi lu ne champion bu ne mais mus ñu la péntural mm-hmm. balay def sa nataal mm-hmm. kon moom daa war a joob ba dee man loolu laa koy noonu la dem ànd boo gis wax dëgg da caa baax léegi xanaa ma dem ci taqe moo ci <laughs> ndeysaan Baye Fall maa ngi lay ziar ñu ngi dolli ziar bu baax ma am nga sëñ Fall bu baax yaa ngi toog ak taqe tey mu mel ni mbër yu bëri jaar nañ seeraas mais tey yàlla dimbali ko moom jaar-jaaram may ko tey lu mel ni ñu def ko ci seeraas duppee ko ko defal ko nataal aménagé barab bi ba mu rafet macha allah loolu loo ciy wax. dëgg la maa ngi sant yàlla julli soo Yonent bi di gërëm sama waajur di sant suñu sëriñ Cheikh Abdou Karim Mbacke borom Makarim Alxuraan di sant mbokk taalibe yëpp maanaam lii mu am yar ak tegginam moo ko may te fi mu jàpp su ko bàyyiwul mun na am lu gën a kawe lii ndax ñun amuñu lu daral. amuñu la lu dul doomu daral te papam tey mun naa ne daf ñu yàgg dimbali yàgg sonn si ñun tey dessin bi ñu ko defal bu dul woon moom waajuram la kon lii mérité na ko kon xam nga nañ na gaa yi gën a jàpp rek te gën a yokk yar gi gën a yokk teggin gi rek ci baaxu sëñ Fallou ngi tuub di jégalu. wax rek lu def waxulu ay di njàmbat yaa waral coow li te tur wa daa mel ni jigéen wu ko ah taqee numéro un maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay ziar buñ julee si yonent bi buñ julee si yàlla julli si yonent bi ñu ngi si ñu ngi sant suñu ñaari waajur ah booy bi daal li mu def daal moom xanaa di ko ñaanal rek parce que li mu def dafa rëy li mu def dafa rëy marché bi bëri na ay nit Seras bëri na ay nit tànnul kenn ku man kon loolu cër la booy bi daal man daf maa sas sama xol daal daa fees mënu si wax lu bëree bëri. lii ñu ko defal nii en tant que koo xam ne nii sa rakk la jël boppam duppee la ko tamit. waaw dëgg la dafa gis si man ay qualité rek parce que nit nit. am na looy def am na am na métier booy def rek foog nga am koo si dafa gis si man ay qualité man damaa mën bëre mën football waaw mën naa bëre mën naa football man ma waaw daanaa bëre si mbapat daanaa bëre si koñ itam daanaa bëre fu ne daal waaw bëre moom mën naa ko champion dajel si lamb ci yu ne ci lamb ji tey dëgg la dëgg la waaw waaw am na ñu ma jot a dajel am na ñoo xamante ne jotuñu daje ah, comme ku mel ni ñu koy waxatee waaye ñoom Bac Seras non Bac Seras moom ñoo doon ànd waaw Bac Seras ñoo doon ay Jordan ay Alaaji Bukki ay Malaw Seras waaw ñoo ñëpp ñoo fowandoo même génération lañu waaw ñoo ñëpp même génération mais boobi daal li mu def dafa man daal mënu ma si wax lu bari daal di ko ñaanal rek suñu borom kaweel ko waaw li mu si bëgg suñu borom defal ko ko mu dem ba nekk roi des Euh, léegi ma ñëw ci président balaa may dem ci taqe numéro 2 ah euh, président maa ngi lay ziar. maa ngi lay sant di la gërëm baax baax. tur bi maa ngi tudd Amath Tidiane Sow ñu gën a xamee Fouta. Uh-huh. Amath Tidiane Sow ñu gën a xamee si Fouta. waaw macha allah. min ko Alpulaar. Eh, Alpulaar yu muy baamu foofu. Uh-huh. oui. Uh-huh. am na solo kii tey boo jiitee yow yaay président bi fii président. des des jeunes. des jeunes waaw. maay président jeune de Daral. waaw di sant booy yëpp di gërëm ñëpp di gërëm seen i kilifa yi fi nekk seen président bi koy gërëm baax a baax. di kii Moutalla di gërëm mag ak ndaw ak xale yërëm ñëpp daal waa dara ñëpp jaakatu ngooñ jaakatu lépp daal ñu leen di gërëm di santaat bu baax di xam ne ñun amuñu lu xale yi xale yi ñoom amuñu lu mag ñi xale yi set nañ loxo lool fii bandi amu fi tokkoot sang daan ko sangar amu fi yàmba amu fi booy liggéey daan doole amul booy boo gis macha allah yàlla am lu ko dénk booy yaa seen xar ci biir seen i nag leen lépp di liggéey vraiment di seen waajur di gëm ne ñii amuñu lu lu ñi nekk fi ñëpp di gërëm si ni vraiment si ni sama secrétaire nag mel Mbaye Tall mu ngi fi di gërëm ñëpp. dëgg la kontaan naa ci yow président. ah grand Diak grand Diak grand Diak bee moo ñu gis gars yi ñoo jàng ñoom Balla Diak donc non dama expliqué Diak kii moo ñoom jàng Balla Beye numéro 1 moo leen jàngal bëri. moo tax kenn moo jàngal ñoom Balla Beye numéro 1 ah, bëri waaw moo tax il faut ñu wax loolu leer grand boobu. kële ne sol mbaxana mi moo jàngal Balla Beye numéro 1 bu Pikine bëri. waaw moo wax leer loo la lu ñëpp fi la jàng moo ko doon ngem moo ko jàngal bëri ñu ak ñoom Samba Jalle ñoom ñëpp moo leen jàngal fii ñoom maalo seera mi ngay dégg maalo bu mag waaw ñëpp moo leen jàngal bëri ñu jaar si ay loxoom comme mu ngi nii tey campagne yi dañ ko wax lu yàgg la bu may dem làmb man dañ may uuf ma daw kon loolu yàgg la waaw léegi moo nag dañuy santaat yàlla bu baax di gërëm booy yëpp ñu nekk si ni booy bi takki mi wax takki xale bu set loxo la bàyyi mooñ jàngale bàyyi lu muy wax rek mu ne ma 3000 francs la fi ñëwoon ñun boobu ñun ñëwoon fi di liggéey daan suñu doole gëm suñu boobu yàlla teg fi ñu teg kon xale yi dañu leen di ñaanal ñi ñëpp ñu nekk benn ñaax nañu ñun tey lu mu soxla suba boobu ngoon ñu ngi si xam nga lu ñu ko gëmloo ñu ngi si bu nekk dafa laaj moyen ñu ngi si wala yeneen bagage lépp ñu ngi si pour jàppale ko mu réussir dafa ñaan yàlla pour mu nekk roi des arènes mu nekk roi des daral baal daral xar waaw jërëjëf ci nag bi xajul ci ci waaye am na loo xam ne ni oto lu mu xaj xaj yóbbante du jamono ma ñàkk parce que bu ma bu ma fi ñëwee gis koo xam ne dañ ne moo daan ngem Balla Beye numéro un dugal daan ànd ak moom ci làmb defe naa kooku tamit faw mu wax kilifa gi maa ngi lay jaar maa ngi la koy delloo. tur bi nan la. man Diak Cissé lañ may wax. Euh, tey taqe moo ñu fi indi nekk ak yéen ci marché bi ñu tuddee ko lu mel nii loo mu war a wax ci taqe ci lu gàtt. ah xanaa ñi di ko ñaanal jàmm rek comme mbër la war na mën a góorgóorlu fonk fonk carrière am te xam ne war na mën a bëreeg champion yi fi nekk waaw képp kuy mbër rek di takk ngemb rek tey war na mën a bëreeg ak yow waaw du ko tegee ci yoon waaw gis nga ci moom qualité boobu waaw normalement qualité boobu am na ci moom te te gars yi dañ ko ciy dolliwaat waaw lu ñuy dolli la mais mais nekk na fi mais daa am loo xam ne dañ ko ciy dolliwaat rek waaw mais lu fi nekk la lu fi nekk la yow de bu ñu ne ma da ngay da nga doon Balla Gaye numéro un dañ ne léegi yaa daan ko daan xaw ma ngemb wala nu mu nu mu demee noonu waaw léegi loolu ñu jëkk a wax noonu am na ball Gaye numéro un ba muy jàng bëre ci man la jaar hmm. loolu moom yàlla def na ko te doo ko laajoon it dina ko wax hmm. waaw euh, ba yàlla defal na ko it li mu ko war a defal ci làmb waaw hmm. ah, boo gis nag daa am fu mu yem mais carrière bii nag dañu bëgg mu dépassé foofu yëpp te yàlla na ko yàlla defit waaw mu dem ba bëreeg ñi fi man ñun loolu lañ koy yéenee moom lañ ko bëggal waaw. am na solo daa mel ni kon moom mu nga ca yoon waa waaw nga xam ne nii moom mooy euh, euh, Seras dégg ngeen gars yi nit ñi li ñu wax ah, parce que fii dafa naa ne nit ki bu ñu waxee si yow mbaax rek ça veut dire que am na loo ca def mais kenn du fi waxal kenn lu mu deful rawatina jëf ju baax kon ça veut dire que moom moo ko liggéey donte xale la nekk ak ñoom fii ci daral bi waaye tamit dafa naa ne moo tax nit ki foo nekk Habib na rafet yaa ngi dégg foo nekk rek na rafet. parce que dégg nga li ñu wax ci way juram te olof ne na ñay buy xal mbabal doom jaa tax waaye mën nga ko koo xaalal mu màgg sax xotti mbabal mbaa mu yàqu waaye moom daa mel ni yàqul mbabal ma sàmm na ko euh, parce que ñoom ñoo ko wax du samay wax ñi mu fi ñi fi fekk ko wax taqe maa ngi lay ziar. yee eh, Babacar maa lay fay onze bila bisimilah inawal yàlla ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi yee eh, di sant suma ñaari waajur bu baax a baax a baax yee eh, di sant suma Samba borom gàcc di ko ñaanal fa mu jëm yàlla ko gënal fa mu jugee waaw di sant it sama sëriñ sëñ Seex Jëmm mooy leeru baay Bàcc waaw di sant it xalif général bi bu kër baay Bàcc muy sëñ Seex Daaru di sant it euh, kër Baye Jëmm yi ñoom ñëpp njabootu paaleen bi yëpp maa leen sant bu baax waaw di sant it baay Karim bu baax ak Badiane waaw di sant njabootu Baye Karim bi bu baax a baax ak képp ku sant Mbacke maa lay sant di la gërëm. Euh, tey boo déggee balaa may ñëw ci li nga defal mais boo déggee ñii témoignage yi ñu def ci yow ay mag yoo xam ne man naa ne mat nañ la jur wax ci yow lii loo xam ne ñoo ko sa wayjur ko daan dund nga ñëw di xale ñu dund ko ak yow ba tey mu demee nii looy wax ak ban taxawaay nga war a amee kon après. Eh, Babacar loolu du si mën a sori ndax euh, li ma li tax ma ne du si mën a sori mooy que ñoom dañoo nekk suñuy mag ñun ñu yaroo fii si marché bi ñu nekkee si marché bi ñoom it ñu yar ñu teg ñu si yoon ndax amaana lépp ñu nit si ñoom lañ ko gisee ñun suñu ñëwoon fekk si ñoom beneen kanam beneen kanam boobu la ñuy yor pour roy leen mais ku si nekk soutien de famille nga exemple nga fi nga nekk waaw ku si nekk chaque jour da lay gis di la conseiller lu baax li lay jëmale kanam mu teg la si kon kon foofu doo fa nekkee yow doo réussirul si yow la des waaw ndax ay vainqueur képp ñoo fi nekk eh, ñi xamuñu defet barki am Serap Fall ñi lépp lu ñuy dugg yee gañ lañ si gëm gëmuñu si ñàkk eh, kon tey duñ toxawee pour ñëw jàppale ma dama siy dolli sant bu baax a baax a baax waaw man munuma dara man ma dara ne ku si nekk dama lay jox sa wàccuwaay rek xale bi ma jox ko li mu moom mag bi ma jox ko li moom papa bi ma jox ko li mu moom. ndax àdduna dañ ne doo nekkee si benn affaire bëgg si dara joxal ñëpp cër yemeleel ñëpp waaw bul ne kii la wala kee la yemeleel ñëpp. waaw même sa ennemi sax da nga koy gis jël ko def ko comme sa bopp waaw loolu mooy àdduna quoi. am na solo tey ñu defar lii aménagé ko mbër yu bëri jaar nañ fii comme ñoom ni ñu ko waxee te xëy na lii jotuñu ko fi am yow nga am fi teranga bu mel parce que lii teranga la parce que tey bu ñu ñëwee aménagé benn place maa ngi lay bëggee góor yàlla defar ko nii ba mu rafet jël sa photo def ko fi amuy ah, loo xam ne dootul dañ symbole la loolu tey ban euh, boo ko gisee ban taxawaay nga war a mën a am ci làmb mais ban taxawaay nga war a mën a gën a am ci biir Seras gi ngay liggéeyee. yee man da li ma si mën a wax première wax bi mooy que du ma doonul champion si man la neex. waaw si man la des. ndax période bi ñu toll nii ñii nii nii nii xañu si benn doomu aadama barke maam Serap Fall ñi xol bi àndandoo nii dooloo xàccandoo di dóorandoo yee sama adversaire kese laa yërëm loolu moom lu ma wóor la barke maam Serap Fall waaw di wax Baye yi waaw daal moo wóor waaw ñun ay Baye lañ waaw nekk si waar wi waaw mënuma dara nag chaque jour maa ngi topp sama ginnaaw mag yi. yee luñ ma ne defal lii ma def lii luñ ma tere ma bàyyi ndax li ma jëmale kanam rek lañ bëgg waaw. sa adversaire nga yërëm sa prochain adversaire nga yërëm sa prochain adversaire kan kañ la kan la. waaw maa nga xaar rek ndax man moom wax dëgg yàlla maa ngi toog di daas di fanaan ndax liñ ma def nii dañ ma yee bu baax damay tëdd ba guddi 4 heures ma matin laa yeewu léegi di dem entraînement dem ñëw ndax am na loo xamante ni suñ loo ko defee si biir marché yow da nga war a xam valeur am xam noo ko war a a téye da war a téye sa loxo waaw ndax comme ay mag lañ ci leen neexoon am nañ si yeneen yitte yu ñu war a doxi suñ bàyyee seen yitte yooyu ndax yow sa ndax sa jëmm di la di xeex pour sa carrière rafet yow yow jaayanteel wan leen la nga xamante ne ñoom ku la si gis xolam dina sedd waaw adversaire bi doo ma ko wax wala da ngaa ragal a tudd kenn. non du ma liye mbër xam nga. Ah, euh, euh, taqe waxal lamb ji daa bëri mbër te lamb ji fi mu ne jax na de faaw nga wax ci victoire nga jóge sa digganteeg booy puy mais dama bëgg nag nga wax na ki nga bëgg a bëre wa waa Seras dañoo ragal léegi. non musuñoo ragal. a ah, kon waxal. bàcc Seras fii jaar ragal du jéggi raay. maa ngi koy ziar mbës. waaw ah, kooku suma mag la suma lépp la. mais déggoo li ma la wax fii su ma fi tuddee nit. danaan mafia bi waajal nañ ko ba pare. mais maa ngi toog di xaar promoteur bi adversaire bu ma wax pare naa pour bëri ak moom. Marley dugg na Lamsaar Marley dugg na Lamsaar daan na ne kuréel bu yàggul Fils de Balla si daan na général Malika yaa ngi dégg daanante baa ngi mel ni tulleeg Marley fi mu ne ci lamba ji ah la kera kuwen am na ndam ci kaw double moteur làmb ji jax na ah xanaa di wax Franc daan na Tyson 2 Gris fi Gris 2 ngi fi fas duggoon nga fa. doo wax. waaw mais ba léegi déggoo ma la man su may mag euh, si encadrement bi rek laa am ndax dañ ma sant ne ma carrément laaj ñuul a nga génn mukk di laaj benn mbër santatuñu la loolu ñun li war dinañ ko def mooy li jëndi combat su laajee dix bolok dinañ ko jënd génne ko yóbbu ko estaat sama retour Babacar barke Mama Samba Modou Moussa Falla la gi ñëw nii lu garaaw ngay gis séerase bi yëppay génn barke Mame Serap Fall eh, mafia bu dëgër laa fi téye barke maam Serap te ñu ngi dox gëstu yoo xamante ne. jël nañ décision pour jàppale waaw te bis bu amee combat si ngay xam ne ñii jël nañ décision pour jàppale ma. Mhm. jël nañ décision pour jàppale la macha allah mu mel ni ah, donte nanguwoo tudd adversaire mais tey su ma la waxoon ne la ki nga xam ne ni euh, moom moo di euh, Franc wala Gris 2 loo may wax si ñaar ñooñu pare nga pour bëreeg ñoom. man aw ma ku xel ñaar ku ñëw ma bëreeg yow. Babacar man sama yoon yombul. Eh, soo xoolee ki daan jara daan Big Mo daan Belende ñooñu duñu ay adversaires yu yomb. Ah, Belende de vainqueur la. Ah, Belende bi mu koy Belende bi mu koy jël six KO la def ñëpp xaaj bi ñëpp ñi may àndal dañ naan ma doo xefee dina la dóor nga daanu mais gëm-gëm bi ne si man ak sañ-sañ bi ne si man moo tax ma daan ko. Eh. kon tiitoo Gris 2 tiitoo Franc. wallaahi lu mu gën a ponkal gën a baax barki mam Serap Fall hmm. aw ma si xel ñaar billaahi na gaa yi ñëw rek waaw man bëre rek moo ma ñor loolu lañ ma sant waaw fi mu nekk nii mu mel ni bu ma jeexale foofu yéen a ngi jëm ci ay combat yéen waa Lansar yéen ubbi ngeen ah, bëri ngeen ubbi saison bi daanu ngeen ñëwaat keroog daan seen diggante ak double moteur loolu looy looy wax tey Quench waaw di ko félicité Quench fi mu ko teg noonu la baax na na daasaat fanaa dal te xam ne nag gars yi dañ ko war a jox ay mbër yoo nga xamante ni du ay combat jànk na ko mag yi may sens Quench foofu la tollu jamono juñ toll nii mais dafa sonn ci ñoo xamante ne yow ñoo xamante da lay wóor ni du leen daanee du leen yóbbu du ko yóbbu fenn yee na ko gars yi jox adversaire yu baax yi mu daan yow koo gis comme adversaire comme Quench non ñi fi nekk bëri nañ adversaire yi bëri nañ ñi mu war a mën a bëreel bëri nañ non man moom wax dëgg yàlla xam nga rek <laughs> Babacar yooyu moom mooy loolu quoi Garga lay wax moo Garga 1 làmb la Garga 1 Quench sa waaw làmb la kay affaire làmb moom xale moo koy def quoi benn instant que dépassé wu ko garga wala. non amul si làmb ndax doo xoolee QNC li muy indi garga du ko indi waaw suñu xoolee si cadre supporter rek garga day xaar day dem ba buddu kër Adja xaar mbay xaar ma foofu. <laughs> yaa ko wax garga ak lay dégg <laughs> maa ngi koy siyaar Siteu foofu la ñuy jeexalee ku la gis ku la xam-xam Siteu fu ñu la gis gis fa Siteu gis fa Abou Niasse gis fa ñoom Abdou Seck ak consort Mama Lamine ñoom ah ay bul yéen ñëpp yéen ñëpp benn waaw waaw gaa yooyu Siteu ngi jëm ci bés ki nga xam ne nii moom mooy Abo ngi jëm ci bés loolu loo noo ko gisee. li ma si wax mooy Abou Ndiaye di ko ñaanal ndam ndax soo xewee doo xoolee tey jii sax la open press am tey jii samedi bi nii Lamsaar dimanche la war a bëree di ko si ñaanal ndam lu yaatu ndax liggéey nañ ko wàcc nañ ko li si war lépp def nañ ko waaw yàllaa si des ñu ngi koy ñaan yàlla ñu yàlla suturaal mais ñu ndam si combat boobu. Mhm. Papa Sow ak Siteu foofu dégg naa combat bu dangereux ngeen di bëri. yee danger na si nit ñi la danger mais si ñun danger wul. Hmm. yee pour man que ñun liggéey nañ lu ñu war a liggéey dañoo war a ñëw rek trouver mais hmm. comme danger amu fa quoi. Papa Sow amul amul pourtant xool na leen euh, Iba Mar na leen liggéeyu ngeen de. yee loolu pour dox si même waaru mbër mi la rek mais doo xoolaatee bi ñu ñëwaatee def signature ba si Siteu solee benn jiinam nii nder la def waxaatul loolu lépp li si war xale moo koy def. Eh, te sa waay mi ngi si mi ngi liggéey eh, di ko si ñaanal suñu borom bi yàlla na ko yàlla defal ndam bu set wicc waaw te rafet nañ si njort papa day xaar moom it day dem ba kër Adja xaar may xaar ma foofu ah, waaw. Ah, <laughs> ah. mu mel ni mbër <laughs> mbër mbër mu am liggéey neex na de parce que da ngay bëre mais da ngay liggéey. yee damay liggéey ndax sama place papa laa nekk ndax soo xoolee wit benn instant ndimbal da say fekk loxol borom. Eh, balaa jaamu yàlla yi di la dimbale eh, nañ xool ni kii li muy def mu ngi ciy dimbali boppam waaw ndax loolu laa gëm quoi man gëwuma chaque jour dem si nit di ko ñaan hmm. bugguma ko quoi damay ànd ak samay nit sax dañuy naan nañ dem si diw lii mais du ma dem hmm. ndax man jàpp naa ne chaque jour lépp lu ma mënti am sama ñàkk mën na ma ko may waaw ndax soo xoolee entraînement mën nga ko xëy dem def hmm. continuer dem liggéey waaw su ngoonee cinq heures si jotee nga bàyyiwaat liggéey bi dem contact waaw du la wàññi dara da ngay ñëw am loo rere xel waaw mën a jàppale maire bi jàppale paa bi waaw ak njaboot bi ak képp ku yaakaar si yow mais doo ko bëggee wér si làmb rek nga am combat dañ naan mbër mi feyeku na nangam mais pourquoi du jàppale nit ñi te dañuy xam ne doo xoolee làmb jooju xaalis boobu ngay jël doo ko defee si làmb ji day jeex waaw après nit ñi di la xoolee ni yor na muuni te yorul muuni voilà. am na solo taqe am na soxna. waaw am naa soxna. Ah. Uh-huh. macha allah. kon taqe looy tàggoo ñi lay suivre ci Equivox TV. Eh, li may tàggoo mooy que maa ngi sant ñëpp li ko dalee si daral bi ba autoroute seeraas euh, daralu nag yi ak booy yi fii nii ñoom ñëpp eh, maa ngi leen di sant ñëpp Dalifor daalu Salaam sant jàmm gën wit fi ma dëkk waaw ak mafia bi mairie bi ak maire bi it ñu ngi koy sant bu baax ndax gis nañ geste bi muy def eh, mu ngi ñuy jàppale bu baax a baax ak suñu papa talaa mu ñuy jàppale bu baax ndax lépp moom la waaw su ko neex ñooñu bi ñuy def barke des millions ñoom ñëpp a génn jàppale ñu ba pare génne seen moyen jox ñu waaw kon loolu ñooñu kon xam nga ni am na fu ñu teg ah. eh, di sant suñu mag fuuta mooy suñu président ñun xale yi yée eh, ñun lépp lu ñuy def si moom la ñuy jubali moo ñuy def nii def leen lii def leen la waaw ah, te day day nangoo sonn daal ah di sant suma mag ñi ñëpp di sant suma turandoo take waaw ndax lépp moom la quoi eh, jëluma tur bi jox ko mu jige di ma dam ko ko jox Eh, waaw man gis naa loolu eh, gis nañ lépp waaw bunt bi lépp nice barki maam Serapha waaw di ñaan yàlla xoolal lii bi gën a continuer waaw mafia bi ñi ñëpp ñoom la yéen la ndax su nekkul yéen du dem barki maam Serapha ndax taxe barki maam Serapha lépp lu muy def su dee moom kese kese kese du dem day ñëw waxtaan ak mafia bi ba pare mafia bi ne ko nii ak nii la waaw ñu defee ko noonu di xàccandoo di dóorandoo waaw di sant ñëpp nag waaw di sant wit di dolli sant Mama Samba borom ngàcc a dafa maa defar barki maam Seera Fall di sant sëñ Seex jëmu bu baax sama sëriñ moom laa jox sama bopp àdduna ak alaaxira waaw di sant njabootu paalen bi yëpp sëñ Seex daaru wit maa ngi leen di sant bu baax jaaykatu ceeb yi jaaykatu ataaye jaaykatu pool yi jaaykatu ndox yi jaaykatu laksise yi ñëpp maa leen di bëggee barki maam Seera Fall am na solo <laughs> waaw <laughs> retiendra noonu la dem noonu la demee kon mu am na solo kon defe naa lii ah Habib l'histoire retiendra parce que lii tamit yombul ah kon ça veut dire moom moo ko may boppam comme ni ma waxoon léegi si ubbi bi loolu moo lay wane rek te itam fi ko fekk nii dañ ko fekk mu sol tenue de travail am di liggéey kon defe naa liggéey mooy tax jaamu yàlla sax a ñoŋ boo bëggee jaamu yàlla mu mu mu normal nga tranquille il fallait que ngay liggéey nit ki nag sañ nañ koo dóor ci demal liggéey mais kenn sañu ko dóor ci lu tax amoo ndax am am sunu borom moo koy joxe te wërsëg yi tollawun waaye boo xeere na nga wuti dara yaa ngi dégg kon loolu moo fi amoon tey muy nuyu waa Seras yëpp nag bàyyiwuma kenn di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu nag sama mbok ndax am naa fi benn mbok boo xam ne ñoo bokk dëkk ak yaay ñu koy wax saal Mbay Dimba maa ngi koy béggee bu baax mu ngi ci biir marché bi waaw kooku ñoo bokkee ci ak yaay maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm gaay ba beneen yoon incha allahu rabi léegi moo la gis nga moom liñ fi këllam lépp nga xam ne maalumul